jërëjëf الاقتداء ميمون الاقتداء الحمد لله الذي يصلي على نبي منتخى مصلي صلى وسلم عليه الله في آله وسبي ومن والله وأما الأملاك أيضا بسلا أليس أيضا بسالك لولا سميلينا وجه الختاب تذكر من وأنفسنا الطيبة فخنت خائلا مع انتشاري أجل رجال رسالي يا عامرا بأنزل يا أرى نبينا محمد باب الأولى إليك مني مسر مقدما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته noo ngi nuyu mbooleem mbokki jullit yi mbokki taalibe yi di jiital ci nuyoo bi saahibul fadilati cheikh mu takka mbàkke di ñaan suñu borom dolli ko fee yàggal te dolli ko wéral ba yére yi mu am ci liggéeyal cheikhul xaddim maamam mu man koo defee na mu ko bëggee te nu ànd ko moom di jël nuyoo yooyu ak ziyaar yooyu di ko teg ci loxo kilifa jataay bi muy sëriñ Moustahine Mbacké sëriñ Fallou moom sëriñ Moustahine moom Cheikh Mamadou Lamine Bara mi ngi nii toog feggoo ak sëriñ Mamor Mbacké ibnu sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké ibnu sëriñ Chouaib kon soxna si li mu waxoon Cheikh Mbay mais moom moo koy war a jàllale bu ñu ko joxee kàddu gi waaye lim ma wax daal ni woon naa ko seere mooy na ngeen xam ni fii barabu sëriñ Cheikh Say la moom Serigne Chouaib te it mu xamal boppam ci ni kon ku fi nekk di liggéeyal Serigne Touba nee na lala war ci lu lay jàppale ci lu lay aar ci saayir ak baatin moom la war kon bu fekkee soxna Maam Say day doomam ngeen di delloo njukkal Serigne Chouaib di delloo njukkal Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké ba tax bis bi saa bu ñëwee ngeen jël kenn ci ak njabootam tuddee ko bis bi kon soxna maam say mi ngeen ko tudde tey jii nangeen xam ni ci seen biir la nekk ci lu ngeen yëg ak lu ngeen yëgut mi ngi ànd ak yéen ci kaw mi ngi ànd ak yéen ci suuf te mi ngi leen di xamal ni lépp loo xam ne ne ngeen ca te gisu leen ko ca day jàpp ni lu mu yëgut la waaye lépp lu mu yëg dana sol aw dàllam ànd ko ak yéen loolu la waxoon ni ma naa ko seere di leen nuyu yéen ñëpp di leen sant ci turu soxna maam say Mbàkke moom Serigne Cheikh say Mbàkke mi nga xam ne moom ngeen defal jëf jure gi yéen taximaan yi Serigne Touba yi nekk ci Madiana mu composé une forte délégation jiital si rakkam comme ni ma ko waxee léegi muy Serigne Mamor Mbacke nga xam ne lott nañ sax si jël kàddu seen kanam ndax euh, yoonu murit ni mu baaxoo ñun ay taalibe rek la ñuy doon malgré dañuy yëngu ci leneen nag muy politique di ci ànd ak soxna si waaye nag du tee dafa am leneen lu ñu liyee lu ëpp loolu muy Serigne Touba nga xam ne lépp lu nu mën a def ak lépp lu nu mën a yëngu. bu loolu duggee rek day daal di day daal di wat loolu kon donc soxna si loolu la ñu ànd ak moom bu nu boolee ak rakkam ji moom dong doy na si présenté ko si délégation waaye nag mu ngi ànd ak waa zone 4 bépp nga xam ne bu nu tuddee Assane Mar nekk ci jëwrin ñi nga xam ne ñoo nekk fii si zone 4 Madiana nga xam ne ay responsable APR lañ ak Bada Dieng dëkk ba Sam bu xantul Moubarak ak aadama euh, Dieng nga xam ne moom tamit mu ngi jógee ba tali bu bees ñoom ñëpp doon ay responsable APR di liggéeyal président Macky nekk fii ci gox bi ak soxna Soda Thiam nga xam ne kenn la si jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk zone 4 soxna Maam Say yabal leen fii ngir xam jëf ju rëy ji nga xam ne moom ngeen ko defal ak xam te fi ngeen ko teg te sëriñ bi rekk tax ndax ne xam nañ ne bu fekkonte ne leneen la man ngeen ko fee jeg waaye gëm na ne lii ngeen ko defal sëriñ Touba képp moo tax ngeen di ko defal soxna Maam Say daal nee na mu ngi leen di sant yéen ñëpp te comme ni ko Modou Mbaye Ndiaye waxe woon léegi rek ci ay kàddoom soxna si nee na bu ñu demee nañu ko jottalil ay kàddu cantam di ko santal waa daayira bi nga xam ne mooy nooru daayira ni di taximaani Serigne Touba yi soxna si mu ngi leen di xamal ne lépp lu ngeen nekk suba ba ngoon mu ngi ca ak yéen ndax bu dul dara ci dëkk bii ngeen nekk ci pàkk bi ngeen nekk di Madiana lépp lu fi baax ku ko def moom nga ko defal ndax doomi Serigne Cheikh Say la doomi Serigne Sonhibou la kon donc bu fekkente ne jël ngeen cër bu mel nii tudde ko ko bon amul lenn lu muy def lu dul yabal délégation bu mel nii moom ci boppam nag moo fi waroon a teew bëggoon na fi teew waaye nag comme li ñuy wax rek ndigal moo ko moo ko yëkkati mu ànd ak kilifa gi dem soowu jéem na ba sonn ba ci ngoon lu nekk daj na ko pour jéem a ñëw waaye dafa fekk ne kilifa moo ko téye amul nu muy def mu jël rakkam ji nga xam ne fu mu teew mel na ni soxna maam say Mbacke moo fa teew mu yabal ko ci délégation muy sëñ maam Mbacke ak gars yi nga xam ne moom la ñu àndal. loolu daal mooy kàddu yi nga xam ne bëggoon nañ ko yëkkati ndax xam nañ ne bu fi teewoon dina wax leneen lu dul lii dina wax leneen lu leen gën a convaincre waaye mbégte moom mënta weesu mbégte te soxna si lii ngeen ko def sedd na xolam sedd na xolom ba àgg ci lool nee na nag ubbil na leen ay buntam yéen ñi nga xam ne yéenay liggéey liggéey bu rëy bi ndax kuréel gu mel nii jafe na jafe na ci ndaw man mii ndaw laa daanaka ñoo bokk génération waaye nag xëy na maa ngi si yeneen occupation yéen nag yéen a ngi liggéeyal Serigne Touba ci métier mi ngeen nekk boole koog lii ngeen di def jafe na ndax ay taximan comme ni ko Modou mbay Ndiaye waxee am na beneen xar kanam bu ñu leen daan xoole bu bokkul ak sant Sëñ Touba kon dans ce bu fekkee dem ngeen yéen ba lii nekk seen bopp ngeen di ko def pendant des années ndax c'est pas la première fois ñun yàgg nañ si dëkk bi fii leen juddoo Madiana gi ñu taxaw fii leen juddoo te lii bañ ko dalee gis yàgg na kon loo lu yàgg dëgg la kon lii dëgg la nee na mu ngi leen siy ñaanal si barkeb Serigne Touba mi amul fay mu taxawu leen te kattanal leen ba lépp lu ngeen ci bëgg a liggéeyal ko ni ngeen ko bëggee dans wax ji moo mënta yàgg ndax euh, dañu nekk ci kanami kilifa yoo xam ne lott nañ sëñ Sadda pour di fi jël kàddu waaye sant nañ bu baax a baax a baax a. gudd ànd wér su borom kàttan na ko ba lépp lu bëgg a liggéeyal maam sëñ Touba mu liggéeyal ko ànd ko njaboot sëñ Touba gi ak taalib yëpp di jaare baax kilifa borom ëtt bii muy Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké moom Serigne Souhaïbou. moom sëñ Touba ñu ngi koy ziare bu baax a baax a baax ak mbooleem kilifa yi nga xam ne si ñoo dëkk si Madiana ñu ngi ziare bu baax sëriñ Fallou mi nga xam ne si mooy kilifa jataay bi sëñ Fallou moom sëñ Moussaïn moom sëriñ Baara di mbokk si ay fànn yu bari si kilifa gi ñu yabal fii muy sëñ Fallou sëñ Bakson Lo yàgg nañu bokk jataay bi ñoom ñaar. di wax na rek ñu ngi jël kaddu si turu kilifa googu ñu fi yónni muy seriñ Fallou Mbacke Mohamed gën koo xam si Serigne fàllu Mbacke moom Serigne Mbacke soxna Lo di président conseil départemental bu Mbacke mu yebal ñu si barab bii nga xam ne comme ni ko ñenn si ñu jiitu waxee yàgg na fee ñëw ana fee mbooloo mu bare bare bari tey nag suñu borom dogal bis bii nga xam ne kon xam na ne sama mu tombeek bis boo xay ne si dafa am solo lool si yoonu murit rawatina daaru xuddoos muy bisu sëriñ Cheikh Fall Baye góor mu war faa dem saam gële teewal sëñ Moussa Mohamed loolu moo gàllankoor ba tax sëñ Fall munta ñëw fii bi ñëw mu boole ñoo sëñ Cheikh Ndiaye moor bokk si ñi nga xam ne ñoo ko jege lool si wàllu liggéey bi ak sëriñ Mohamed Dieng ñu ñëw fii si Madiana muy foo xay ni si yàgg nañ fee teg sunu tànk bi ñëwee it ñu fekk sunu kilifa sunu baay koo xam ne si ñoo moom ñoo bokk yem si sëriñ Fallou muy sëriñ Cheikh Ndiaye chef village ñoo ngi koy nuyu di ko ziare mbooleem nuyu yooyu nga xam ne ñu ngi ko jëmal si kilifa yi Madiane yi ñu ngi koy jaarale si Baye Cheikh Ndiaye Madiane mi nga xam ne si moo délégué de quartier bi mu yóbbu ñu fépp fa mu yóbbu Baye Cheikh Ndiaye ñu ngi lay ziare bu baax a baax xam ne lii ñu dox ak wax tey jii yow yaa ko waroon ko parce que ëppalewul na sëñ fàllu féetam ko fépp kon nag su ñëwoon fii wax dëgg fa yàlla yéen yaa waroon jël kàddu gi waaye njëew nañu la jox wàccuwaay bi nga xam ne si ci loolu weesoo ñu ngi nuyu baax a baax soxna maam say Mbàkke moom Serigne Cheikh Say mi nga xay ne si wax nañ ne moom lañ def mu nekk marraine bis bi loole it ñu xam ne lu neex kilifa gi ñu yónni la lu neex ñun ni ñu yónni parce que soxna maam say Mbàkke day kenn si ñun ñu yàgg ànd ak moom liggéey bi yàgg ànd ak moom teew fii kon moom suñ ko tuddee bis bi daanaka rek mel na ne daanaka kàddu sëriñ Fallu sax xawoon naa mën a ñàkk ndax diggante soxna maam say ak sëñ Fallu Mbàkke alors diggante bu rafet la boo xam ne sii ñu naa cëru ko cëru ko xaju fi waaye nag gannaaw lu baax doy nag moo tax rek ñu si jël ci barkeelu di taal si barke bi di si kontaan baax a baax a baax mel na sëñ Fallou Mbacke mii ñu fi yebal daanaka moo fi daa teew si kilifa gannaaw sëñ Fallou mi nga xam ne si moo ko moom kon suñu demee ba yàgg ñu yaatal ko ba yeneen kilifa teew sëñ Fallou Mbacke mi sant bu baax di gërëm bu baax a baax rawat na bi nga tuddee bàjjanam boobu di xaritam soxna am say Mbacke yéen ñi nga xam ne si yéen fi teewal soxna am say Mbacke daal ñu leen yóbbante am nuyoo ak cofeel goo xam ne si sëñ Fallou Mbacke mi ngi fi am na ko si moom di ko ziyaare bu baax a baax di ko ñaanal li nga xam ne si mooy di mébétam si maddiyaana kër maamam gi suñu borom may ko mu liggéey ni nga ko bëggee si barkeb sëñ Touba si barkeb sëñ son yi ñu ngi nuyu baax it soxna su baax si nga xam ne si moom itam tudd nañ ko bis bi muy soxna maam Issa Mbacké moom itam ñu xam ko baax a baax a baax muy kilifa suñu génn kilifa goo xam te ñoo doon ànd suñu kilifa suñu Modou Kara donc ñi nga xam ne ñoo fi ñëw soxna soxna soxna Issa Mbacké ñoo ngi leen di ziar baax a baax di leen yóbbante ab ziar ak ziar baax a baax surtout sëñ Fallou Mbacké moom it soxna Issa Mbacké ku na xam ne ne maam la sëñ Fallou xaritam la ñu ngi koy yóbbante ab ziar di ko ñaanal moom te mu ñaanal sëtam boobu ba fi bëgg a yegg mu yegg fa di kontaan baax a baax a baax si bi nga xam ne si jàpp ngeen si parce que bis bii dafa mel ne képp ku si dugal sa loxo mel na la sëriñ Fallou Mbacke moom sëriñ Mbacke soxla ngoo defal parce que bis ba muy door bisam la woon kon bu ñu demee ba ñeneen nit yeneen ki dugal si baax a baax a baax a baax di wax ne kon sëñ Fallou moom sëñ Moussa ñi ngi lay ziar yasa duñ ziar bu baax a baax di yóot ziar sëriñ Fallou Mbacke sa mbokk sa xarit sa lépp wax dëgg bëggoon naa teew bu baax a baax a baax ñi nga xam ne si ñooy waaye daayira bi ñi ñoo taxawal bis bii yàgg koo taxawal ñi ngi leen di wax ne ñi leen sant leen gërëm sëriñ Fallou nee na amul seen pay bi tol na sant sëriñ ku la si boole rek xamal na kooka amuloo payam yeneen kat yi nga xam ne jot nañ fa jaar muy sëñ maam mu Ndiaye ñu ngi koy sant bu baax a di ko siyaare bu baax a baax sëriñ Pam Mbaye yow itam sunu magum taalibe nga ñoo bokk daara ñu ngi lay siyaare bu baax chaque fois bu ñëwee fii bis bi dana fii fekk nga taxaw taxawaay bu rafet rafet ñu ngi dee jox sa wàccuwaay bu baax a baax a baax kon mboolem kilifa yi nga xam ne si ñoo taxawal bis bii nga xam ne bis la bi bi ni ngeen ko daa taxawee ngeen taxaw ko noram ni ngeen ko daa taxawee xam nañ seen yéene yàlla mën naa dogal ngeen nekk si leneen mais suñu borom dogal ngeen tudd bis bi sëñ di ko jàng ak xasida si waxtaan ñu baax ñu loolu lu rëy rëy la kon nag ñu leen di wax ne ngeen bàyyi xel baax a baax a baax lépp lu ñu fi def si lu baax lépp lu ñu fi jàng si alxuraan jàng ko si xasida lépp yàlla na ko yàlla wisaare mu nekk ay xéewal te saare ko senegal si réew mi lépp ba lépp Sénégal gépp nekk tawfiq bay jafe-jafe yi nga xam ne si réew maa ngi koy am suñu borom joxe ba jafe-jafe yëpp ñu jox fa tàkk ku na xam ne réew mi temps yi bari na ay jafe war gu wér gi moo xam si yeneen ak yeneen a yeneen jafe-jafe yi bari na si réew mi lool yàlla na yàlla def seen bis bii ngeen taxawal suñu borom doxee fa mbooleem problème bi mbooleem jafe-jafe yi am si réew mi suñu borom jox ko saafara ko si barkeb Serigne Touba ñi leen sant leen gërëm di ñaan yàlla yàlla nañ ko fekk ay déwén déwén te at mu ñoon dàq morom yi ba lépp lu ngeen defoon ren ngeen def fukkam si barkeb Serigne Touba sant asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala jërëjëf merci yaakaar naa ne Serigne Abo mi nga xam ne moom lañ fi teewal mu yónni fi Serigne Ñaay Diop mi nga xam ne mooy délégué quartier bi nekk fii ci Madiyana trois ànd ko Abdourahmane Jaxate di mbokkam noonu la sëriñ bi yónni nu bokk fi teewal mbooleem di tàmbali Madiyana 1 2 3 4 5 6 nga xam ne waroon nañoo teew waaye noo leen teewal kon noo ngi wax ci turu sëriñ Abo Mbàkke Say mu wax ne yéen waa dayratul nooru daaree ni te wóori taxi yi nga xam ne ñoo nekk Madiyana nee na mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm nee na mi ngi ànd ak yéen ci li ngeen nekk ndax bi ñu àndee ak léegi ay at yu bari la 2003 lañu ànd ba 2018 te lépp rafet mën naa ci seere ndax mboolem saa boo xamante ne ñun waa ñun ñi noo yor village bi soxla nañu lépp loo xam ne luy defar village bi la lu ñu war koo yëgle moo xam lépp loo xam ne lu jëm ci population bi la te nit ñi war koo yëg damay wax demal ci safaru taxi rek su ma ñëwee fii ci yaa xam rek ak ndàgg bi mu fiy nekk ñu nan ko bëggee lañ koy defee dañu jël ab taxi def ci safoor def ci gasoil jox ma ma jox Ablaye sàmb bërki démb ci mujj mu boole ak Balla kon ñu leen sant ci loolu la weesu ak lii bëgg a ñëw kon sëriñ bi nee na nee na mi ngi ànd ak yéen ndax fàttewu leen dafa xat ndax màggalu sëriñ Souhaïbou gi dañoo toll ci waajtaay wi mu xam ne tey ji ci guddi am na benn kilifa gum war a giseel mu ne ma la nga fa dem ànd ak ñaay Jóob ak Abdourahmane Jaxate ak chef de quartier ngeen teewal ma fa su ma fa mënee jaar sax danaa fa jaar bu guddiwul noonu ko Mbàkke boo buñ la fa teewalee rek daanaka la nga war la la la ca war lépp daanu ko def daanu ko wax kon ñu ngi leen di sant yéen waa daayira bi te ngeen doollee góorgóorlu lii ngeen def rafet na lool boole seen bopp bokk ndey bokk bàyyi di liggéey fii ci Madiyana te liggéey bi lépp rafet kon ñu ngi leen di ci sant mi ngi leen ci gërëm di ci dolli jiital Serigne Pambay mi nga xaay moo jiite gaarasu Madiyana nga xam ne gaarasu tey ba agsee fii ci Pambay la kon Pambay moom ñu ngi koy sant sëñ Abo ne mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm ne mi ngi ñaan li ngeen jublu yàlla na ngeen ci am ndam ni ngeen ko bëgg ngeen ame ko nu ànd ko ak wa bi kilaami wa bil isaara ihdi muridan yadlabul inaara yaqulu abdallahi wa huwa ahmadu qadimu man sumaatu muhammadu بسم الإله وهو رحمن وهو الرحيم خاد لي أمان الحمد لله على كتابي ما سبي مزبر إتابي أدي سيدنا مصطفى الكريم sëñ Fallou ñu ngi lay siyaare bu baax lay jox sa wàccuwaay bu baax kuy sa wayjur sëriñ baara kuy wayjuram xaadimu rasul jàpp naa ne loolu gàtt na lool taggu gàtt la yomb gaa yóbbu sëñ Tuubaa lool noo ngi siyaare bokki taalibe yi di balu àq ñëpp kàddu gi nuy wax Seex Sylla mi jox ma ko mu jóge ci iddika mi nga xam ne moo yilif wata buy daw ci dëkk bi jaar ci papa mbay mii nga xam ne moo yilif buy daw ci dëkk bi jaar ci seex si la mii ci topp nga xam ne lu fi jub ci tataayi fi ne moo ko yore di taalibeeb sëriñ bii toog nag dafa wax ne Idi dafa wax ne moom de nit ko am fayda la lépp lu di dugg ànd kook fayda yaa ngi idi yéen koy ànd waaye lu ay tappale ànd mu génn ci diggante pambay nag ak seex ak idi nag kuy xool sëriñ tubaa xool ko ci diggante boobu jàpp naa ne sëriñ tubaa dong nga mën a am ñett ñu mel ni pambay ak seex ak idi asan xam na li tax may wax loolu toll woon nañuy diggante mu ñàng lool ñoom ñett ñëpp ñu ngi mel ni mburóokum soow ñoom ñett ñëpp ngir jëmmi sëñ Touba maanaam genn bëgg la ñuy bëgg genn bañ la ñuy am muy sëriñ bi seen ñetti kàddu yëpp benn la ci lépp loo gis ñu di ko dox ci dëkk fi mu ne yi ci seen biir laa nekk waaye tànt bu mel ni seen tànt bii doo gisaatoo ko fenn fenn ci dëkk bi ci ñoo xam ne dañuy daw di daw ay dépassé ku ko fi gis ne ma gis naa ko barab sàngam kon fay ngeen bor ba ndax sëñ Tuubaa nee na wa kasran xayraati asal baladi wa resqa o wal tak fii ak nakkadi yow yàlla na nga ma may wërsëg woo xam ne fu ne lay bàyyi ko di dugg Tuubaa bu mu ko génnati sëñ Tuubaa teg ca wajibul ha xayra min jihaati asitti waqfiha anil avati juróom benn xabla yépp na fa dara bàyyi koy dugg Touba te bu mu ko génnati kon kuy dox ci Touba ñi di la jox dara muy dugg ci sa poos nga di koy yët sa waa kër war ngaa am ngor gu tol nii njukkale Serigne Touba genn guddi gu mel nii idi nee na bàyyi na leen xel bu baax a baax nag mi ngi leen di déglu bu baax nag nee na di tax sonn ciin nag idi ak pambay mii ak seex mii benn lañ loolu la yàlla dogal benn lañ lépp lu ngeen am yitte bu ngeen di dox na ngeen ko wax pambay pambay moom noppalu na lépp loo ko wax seex la koy wax seex dana leen ko wax ngeen ànd ko nu ànd lijjanti ko sëñ Tuubaa jàppale nu ca mu sotti bis bii ngeen def yàlla na ngeen ko yàgg a man yàlla na ngeen am seen watay bopp yéen ñépp njukkal sëñ tubaa jot na lool lool lool ci noonu sëriñ tubaa wax ne fu ne ci àddina ci lu nuy jëriñ wa bi kitaabati rabbi rabbi kulla mutaalihin li wacci rabbi ci jaalibatal maraaxib ne yow yàlla sama woy wii képp ku koy wax nag ma maraleel sa jëmm jaag jëmmam noo ngi sant chef de village si sëriñ Cheikh Say yii tàmbalee ko ci nijaay Cheikh Ndiaye mii ci Madiana 1 ak sëñ Abdourahmane Jaxate mii nga xam ne sëriñ bii fi yónni tey jii ñoo bokk menn maam sañ sëñ Amsatu Jaxate mooy baayam ab sëriñ la ci nun ñëpp teg ci ñaay mii ak mboolem ñi ñu àndal liggéey bi seenub liggéey rafet na ci Madiyaana bu nit di liggéey lu mu mën a doon ci Madiyaana ngeen ànd koog ñoom bu loola jeexee ngeen dellu ca la leen sëriñ ba liggéey doon liggéeyloo loolu ngeen fi nekkee ak nun seen ndombe gi yàlla na yàgg ak yéen sëñ Cheikh say na fi yàgg lool nag te wér ak doomam yi noo ngi siyaare sunu bokk yu baax yi soxna si Mbàkke euh, noo ngi lay siyaare baax euh, ban dalee def bis bi ba léegi bañ la ko tuddee ak bañ la ko tuddeewut heure bu ne yaa ngi fi waaye li ngay wut yow yàlla na nga ko am nag nun Mbàkke sa taalibe baay képp lan nun ay taalibe képp lan yuy jëfe ndigal euh, lu dëng ci wax ji nag ci man mii la manqué waaye seex mii moom li ma waxoon matale na lépp bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim assalaamu wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Cheikh Mouhamadou Fadal noo lay siyaar bu baax a baax a baax a baax a baax di la jox sa wàccuwaay it bi nga xam ni yaa ko mu dox sunu diggante ak yow beneen ba ca des it dañuy koy tëb tëbum góor rek gàttal ko sëñ Pambay yaag Idika noo ngi leen di nuyu bu baax ndax noo bokk ab teen faw nu laxasooy bët beneen ba ca des it Modou Seck yaag mboolem ñi nga bokkal gaaraas bii waaye nu indi ay kàdduy yu seede it yoo xam ni sunu jëwriñ jee nga xam ni mooy Isaaxa Mbuub moom la yàlla dogal taximaani Serigne Touba nooru daaray nii ca Ndakaaru moom mooy jëwriñ ji mu mel ni ànd naag Aliou Samb ak Jibril Ngom ak euh, sëriñ Xaadim Fall ak euh, Serigne Sall Mële ñoo ànd ak seen baay bii nga xam ni dañ ko ni yaa nuy waxal te xamul lu muy wax waaye nag yoonu murit moom mag amu ci ndaw amu ci ndigal rekk ci am loolu moo tax nu jóg jël kàddu gi waaye kon duñu wax waaye bu ñu nee yowey sunu baay yaa nuy defal nangam te dogu ca faaw ma fekk leen ca muy ay ndaw yoo xam ne it e, ku ne mën naa ànd ak ñoom ndax seen loxo set na seenum xel rafet na seen jëf rafet na moo tax ma ànd ak ñoom ak ñi mel ni man te biir daayira ba muy ay gone yoo xam ni wax dëgg yàlla nun day rafetlu nanu seenub liggéey dama wax ni man 78 laa dem ndakaaru poor laa jëkk di liggéey di yanu ay saaku ba yàgg ma dem ci oto yi di ci jàng oto dawal car rapide lang naa ko lu ne def naa ko dawal njaga njaay dawal camion 93 ma taxi kon mbooloo mi am na lu ma ci xam ci nit ñi waaye ñoom ñi nag yàlla dogalee li nu boole lëkkale nu mënee koo bañ a wax ndax mooy Lamp Fall rajab seexul xaddim tàmbale ci sëriñ Touba yem ci sëriñ Touba rajo boobu moonu boole ndax ab taximaan foo ko fekk day yorub taalub rajoom di déglu sëriñ Touba nag narnoo dimbali def ci sunuy xol sunu nopp yi ñu jël ko teg ko ci rajo bi nu koy def bu laylatul xadar gi ñëwee Alioune Thioune woote tout tànk yi jàng alxuraan ñi ci mokkal ñu def concours ka ca raw ak ka ca topp ba ca troisième ba ñu dox leen ay neexal nu di fa daje ñi xamante laaj deux mille deux mille nu joxe ko sunu barkeelu nu def ko lu mat ñetti at ñu ni lii de baax na lool waaye na leen ko def ab kuréel bi yàlla dogalee kuréel boobu mu taxawal ko moom mais ñu ne ko yaay doon jëwriñ ji mu ne duma ko doon ñu ni ko yaay doon jëwriñ ji yow lañ koy def bu fekkee da ngay wéyee ndigal yow lañuy ñuy yónni mu soog a nangu loole bi ñu ko tàmbalee nee naa yàgg naa ci nit ñi waaye gone yi ma ca àndal yépp wax dëgg yàlla man doyloo naa leen ci lépp ndax nag man Jóob laa sant te ku sant Jóob ku ne xam ne ne ab dof la te ndof googu dama ci am sëriñ Touba dama ci sëdd ndax damaa bëgg sëriñ Touba bi may ne fii ma juddoo ba ba may dem Ndakaaru ma xool gone yi muy gone yi neex a àndal ma takkuk la ko saay ànd ak ñoom ñuy liggéey liggéey bu rafet liggéey biit fi mu jëm mooy doo dégg mukk taximaanab Serigne Touba bu wax lu dul noonu mbaa mu def ko mbaa mu jël yëfi jàmbur te lépp lu waay fàtte ci tax maam Serigne Touba incha allahu taala na borom tëdd na nelaw te xam ni dee ci jot ndax nu ñu mën a def borom jot ci dañ ko def fay nañ ci seen xaalis ay communiqué taal ci seen gasoil di wër borom ba gis ko budul benn yoon du ñaari yoon kon loolu tax maam Serigne Touba ko waral li ko tudd itam mooy sopp gi sopp Serigne Touba di ko déglu. di du Lamp Fall ni ko Assane Mbaye di waxee minal xadimi ilal xadimi tàmbale ci Serigne Touba yem ci Serigne Touba loola Lamp Fall di dund ànd ko moom loola ba mu amee ñuy dox di dox ba Alioune Thioune wax ni yéen day taximaani Serigne Touba ngeen muy loo xam ne nag nun noo koy tiitaroo bu baax a baax a baax a baax a baax ndax képp ku ñu adressé Serigne Touba ca la ngay yëngatu war ngaa sant yàlla bu baax te xam ni yàlla fàttewule safoor si nag alhamdulilahi rabbil alamina daa am néeg yu ñu dëkkale waaye ñan fa dëkkale woon seeni wax xuna tey jii tam nag alhamdulilahi bi mu ñëwee fii ci Touba ñu tàmbali fee liggéeyal Serigne Touba te liñ fi dégg ñu koy wax safoor yi neexal ñu leen joxuñu leen añ ñu leen reer kon yàllaa tax ñu di ko wax liggéey bu rafet lañ fi liggéey ak dëkkandoo yi kon alhamdulilah rabbil alamina deneen ba ca des Cheikh Sidi Muxtaar bi mu ñu tuddee nooru daara ni taximaani Serigne Touba xamuñu woon ni dinañu dox ba mu lëkkale noonu ñii kon sëñ Touba kenn xamul la mu doon tey incha allahu taala dina yaatu ci Touba gi na mu yaatoo Ndakaaru mbaa Touba raw ci ndax nag yéen ñi nekk Touba na xam ni bis ni ki tey safoor yëpp yéen la ñuy xool yéen la déglu. yéen a bi ndax Serigne Touba royu ba adduna bépp Serigne Touba royuwaay bi kon yéen ñi fi féete na ngeen xam ne sëwoor bu nekk Ndakaar ak bu nekk Kaolack ak bu nekk Ndar taximaani Serigne Touba yi nekk Touba la ñuy déglu ñoom lañuy xool ba xam nu ñuy doxale ak nu ñuy waxe wala fi nag dañu ne li duuf ci nag wi xajandoowul ci cin li te junju doy na boromam xel noo koy tëkkum si tënk fii sëñ Fallou xam nañu sëñ Baara sa maam xam nañ li ko sëñ Touba sédd danoo bëgg taximaan boo xamante ni wala sëfoor boo xamante ni bëgg nga sëriñ Touba yàlla musal ci aw ay musal la ci ndog bu kenn dal sa kaw boo dal ci kaw kenn ci barke Seexul Xadim sëfoor sii maa ñoom lañ ci am na ñoo xam ne xam nañ ma fii bu njëkkoon dañ daan wax naan sëfoor siin gi mooy sàcc faa gi mooy fen waa gi waaw gi mooy wor raa gi mooy rawale sëñ Tuubaa ñëw na dindi yëpp siin gi mooy sañse solo ba jekk bu ku la gis yaakaar ne ab ministère nga wala ab député nga ku la gis xam ne taalibu sëñ Tuubaa nga mooy siin gi foofu lañ loolu lañ ko changé léegi faa gi mooy fulla ak fayda ju mat sëkk ak xam li ngay liggéey ak fa nga koy dugal mooy faa gi waaw gi mooy wakiilu ci yàlla te bañ a woor kenn ci ka nga séqal lam la jox raa gi mooy raamal sëriñ tubaa loo am nga jox ko ko te sëñ tubaa tax loo man loolu maa ko sensé noonu man ci turu sëñ mën sëñ Muntaxaa nag li ñu yónni moo di ne soññi nañu ne bu ngeen demee na ngeen wax ne taalibe yi nañu sax ci jaamu yàlla ak liggéey ak tuub ak baalante ak ak nangoo jéggalante tey muñalante tey kenn ku ci nekk la nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom te bañ a yoole bañ a farfarloo bañ a farle sëñ dey ba mu ne man taxal laxa bi yeen najaa ku aju ci man mucc adduna ak alaxira loolu sëñ Tuubaa waxoon ku aju ci man danga mucc adduna ak alaxira waaye nag ndax sëñ Tuubaa nangul na la ne aju nga ci moom wala déet loolu am loolu mooy laaj bi waaw murit laa rek wëlbati ko na saarix laa rek ca li sëñ bi digle defoo ko li mu tere bàyyi woo ko fam la yemloo yemloo fa yemoo fa boo taxawee wax sa bopp ne man murit saadix laa itam yaa ko wax ci saw làmmiñ waaye du dëgg te kenn ku nekk na xam ne da nga taxaw ëllëg ci kanam sa borom wa kulluhum aatihi yawmal qiyaamati fardan da nga taxaw ci kanam sunu borom sunu borom audit la nii état bi nekke ñu ne ku am xaalis wala ku am nangam nangam dañ lay audit woola laaj la li nga am foo ko jëlee fu mu dugg ak nangam ak nangam yàlla tax audit ñëpp te kenn ku ne da nga taxaw ci sa kanam ci kanamam mu audit la kiraaman kaatibiina yaxlamuuna maa tafxaluuna inal abraara la fii naximin wa inal fujaara la fii jaximin audit audit a ngoog su nurihum ayatina fi la faaxi wa fi anfusihim xataa yatabayyana lahum annahu alxaqu awlam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahidun ala innahum fi miryatin min liqaa'i rabbihim ala innahu bi kulli shay'in muhitun audita ngoog man amila saalihan fa li nafsihi audita ngoog kon nañu waajal àllaaxira nga xam ne adduna ji day jeex kat-kat yii ñuy war tubaab yow ko liggéey te defaluñ yàlla dara defaluñ yonent bi dara defaluñ sëñ tubaab dara te lañ bëggan sëñ tubaab bu ñu ko amoon muy seen ndam ñun bu ñu nekk fii ñu taxaw tey ay saako yu feel ak saako yu gumus la ñuy wat di ko yaru di ko yóbbu duñ xam fuñ ko yóbbu duñ xam fuñ koy jële sëñ tubaab ñu tàqaleeg loolu sëriñ si ak taalibe yi ñëpp a yem ci sëñ tubaa ku noppee doonu taalibe sëñ tubaa doonu doo fa dara ku noppee doon taalibe sëñ tubaa doonu doo fa dara ku ñuy sukkal ak a raamal da ngay delloo njukkal sëriñ tubaa ma tax ñu lay sukkal di la raamal mooy di ne ci digle ak di bàyyi wax ñi bàyyi tere yi waaye hadiya am na njariñ lool waaye ab denc la nañ bàyyi xel na ab denc la da nga sa gaal rek wax ne sëriñ bi dama bëgg nga dencal ma saa fukk yii wala naa bëgg nga dencal ma saa junni bii denc nag boo ca bëggee mbaa nga bew ca lañ la lañ la dénk moo moo ko yeyoo woo ko nañu delluwaat te xam ne taalibe yi kat alaaji baara moo waxal ba fii ne taalibe yee fi ne jamaa ji ñooma yoon yi ñooma tool yi ñooma nangam ak nangam ñooma munuñ cee génn te ku taxaw yëkkati sab loxo na banaa sëñ Tuubaa boo wootee kenn doo ko gis te man woote yi bari fii su ma ñëwee fii ñu ne tool sàngam sëñ see ko woote ruuj ba wala nangam ak nangam boo ñëwee fii ci Madiyana doo ma fa fekk chauffeur du ma fekk apprenti ñëppay dem ku dem dangaa ngaa wérut kon nañu bàyyi xel sëriñ si nañu bàyyi taalibe yi nañu bàyyi sëriñ si xel waaye sëriñ si nañu bàyyi taalibe yi xel bañ a jare ñoo li ci seeni i poos rek te duñ leen wax lii dëgg gi dëgg gi nag mooy li yàlla digle yonent bi digle ko sëñ Tuubaa digle ko loolu mooy dëgg gi mbooloo mu bari mi ku la ko ëpple yamal xiyaam moo lay gën a sonn ci ab lijjanti yaqdumu xawmahu yawmal xiyaamati fa awradahum naaru biisal wirdul mawruud na fekk nga nekkoon ci li sëñ Tuubaa nekkoon rek ñu bokk la ñu nekkoon ëllëg ñooy gisee waaye ku bokkut ak la nga nekkoon ak ka nga nekkal bokk la nu ngeen nekk yawmal xiyaam du ngeen gisee waykat yi ak waykat yi ñooy gisee mbër yi ak mbër yi ñooy gisee jànkat alxuraan yi jànkat alxuraan yi ñooy gisee taalibe sëñ Tuubaa yi taalibe sëñ yi ñooy gisee ña newoon ci ndigal ya waaw waaye ku newut ci ndigal yi leen yàlla digal defoo ko leen la yonent bi digal defoo ko leen la sëñ Tuubaa digal defoo ko fa mu la awloo awoo fa boo nee sëñ Tuubaa laa yaakaar itam sëñ Tuubaa moom amul soxla ci yow la alxuraan waxaat ne xul maa yahbu bikum rabbi law laa duhaakum faxat kasabtum fa safa yakun li saaman yàlla nee na bu du ko sëriñ si nga xam ne ba ñuy doon gone fer am soow xamee seen loxoom dajoor seen tàmmooñ la ñu tàmbali di woote ci yàlla di digle di tere mooy amara bil ma'ruuf wa ñu ne ca loola ba màggat nee na ñooñu day bu ñu man yàlla daal di ruus leen xale yu ndaw yi nga xam ne dañu ay jirim nàmp seen yaay gaañu wala ñu woon xale yu ndaw toll ci nàmp ñoo ñu de yàlla nee na bu dëddan seen yaay yooyee a xale yu ndaw yooyee kon mën naa tukkal adduna am na ñag ñoo xam ne ay jànkat lañu dañoo xam ne yàlla moo ne ad'uuni astajib lakum ñaan leen ma ma may leen yàlla waxut loolu ñu koy tekki dañoo jàngut alxuraan waaye yàlla ne wut ñaan leen ma may leen woo leen ma ma wuyu leen lay tekki ad'uuni astajib lakum woo leen ma ma wuyu leen waaye nag bari na lu waaye day ñaan ca doo ko gis boo ko gisut nag nga ñaane ko ci gisoo ko ñaane ko ci yonent bi daraayam ko ñaane ko ci baaxam sëñ Tuubaa gisoo ko seetaatal sa bopp te xam ne yow yaa mutut la nga doon sëñ Tuubaa naxut kenn naxut kenn ku nax yaa nax sa bopp wala nga nanga ñu nax la koo xam ne sa bopp bii nag nangu waajaa def dara ñu ka ka ca bëgg a def dara defal la ca lu jariñoo bàyyi la yow ngay wéyang wéyangi sëñ Tuubaa jàpp taalibe ngir muy wéyangi bàyyi na fi ay kàngam ku mel ne maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muriidiina ku tudd sëñ Tuubaa tudd ko sëñ Isaa Jenn ngi fi sëñ Daaru Asan Njaay nga fi sëñ Masamba Jëb Saam nga fi sëñ Ibrahima Sarr Njaay ngi fi sëñ Abdourahmane Lool ngi fi sëñ Amsatu Jaxate ngi fi sëñ Mbay Saara ngi fi sëñ Cheikh Saara ngi fi sëñ Cerno Juuf Lambaye ngi fi sëñ Abdul Aliyu Juuf Lambaye ngi fi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñooñu wute woon ci ay caaxaan kenn kuy tëdd di nelaw nag ba dee jot la loola gaañ yaa gaañ sa bopp waaye sëñ bi tegal na la ci aw yoon nee na avant sibtu moo annama xalaqnaakum habasan wa annakum ilayna laa turjauna fatahala llaahu malikul haq laa ilaha illa huwa rabbul arshil karim wa man yad'u ma'a llaahi ilaahan akhar laa burhaana lahu bihi fa innama hisaabuhu inda rabbih innahu laa yuflihul kaafiruun fee mu daal waxan ne alif laam miim ahasiba annaasu an yutrakuu an yaquulu aamanaa wa hum laa yuftanuun wa laqad fatanna allaziina min qablihim fa laa ya'lamanna llaahu allaziina sadaquu wa laa ya'lamanna al-kaasibiina am hasiba lazina yahmaluna sayyiati an yasbiquna saa ma yahkumuna man kana yarju liqa allahi fa inna ajala allahi la ayatun wa samiun alimu wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi inna allaha la ganiyun anil alamina walazina amanu amilu salihati la nukaffiranna anhum sayyiatihim kon loolu ay caaxaan néew fa ci sëñ Abdoulaye waxoon na ko ba yàgg ab taalibe day mat la mu doon beneen ba ci des maa ngi sant yàlla di sant Sëriñ Muntaxa ci ndigal yi mu joxe ndax kat moo wax jox ndigal ci sëñ Modou Lo Ngabou xamal ko ne ko semaine la maan ba tàmbalee léegi tàmbalee ci sëñ Abdou Lahad ba ci sëñ Sidi Mokhtar ba ci moom mii tey keroog ba ñu fa demee dafa wax ne dafa mel ne liggéey bi mi ngi soog a tàmbali tey te mosuma koo ñàkk ànd ak yéen ñi nga xam ne ñoo fi nekk nag di jëfandikoo ndigal yi lu ma sëñ Tuubaa jox ma bokk ak ñoom ñi nga xam ne ñu fay nekk nag di ko lu bokkut ak li yàlla digle yonent bi digle ko sëñ Tuubaa diglewu ko ñu ko ci dëkk bi man mun taxaa maay jëfanteeg ñoom lu leer la jox wax wëlbati ko jox nañu oto bu bees teq ab 4x4 buy jar fanweeri million sëñ Modou Lo nga bu dolli ko jëndal ci ñeneen ñaari oto muy Mercedes bii ma war ak bay def opération bi ñëwuñu nag ngir jàpp kenn waaye nag nañ waxante la fi ñu seetal dëkk bi te te jàppale sëñ Cheikh Seye ci dëkk bi ci Madiyana gii ndax ñi fiy xeex dëkk bi Madiyana ngir bëgg fay jëlee safoor si bëgg fay jëlee commerçant yi ca kaw la ne te man xam naa leen ndax maa ñoom ñoo bokk sëñ Touba moo leen maa ngi ñoom ñoo bokk fu ñuy liggéey te saa bu dëgg ju jugee bu dëgg jóge bu dara jógee war a jëm si sa wërsi wala bu war a jëm si sa Madiana nun ñi nga xam ne dañ koo yëg doon ay sëti sadaati sëñ Tuubaa ci biir te doon ay talibeem bu ñu demee ñooy foqartu loolee wax ne li ngeen wax du dëgg am moo tax ñuy def loolee waaye ab li muy tekki mooy nga seex dëgg te bañ koo yàbbi te lu nga seexlu ko te bañ koo seex loolu moo di ceex waaye dajale mbooloo rek si iblis mën na ko seytaane mën na ko ab waykat mën na ko mbërëm làmb mën na ko man mii def saay saay sax mën naa ko daj mën na maa dajale mbooloo mu ëpp muy fuuf dajale leen di leen wax li ma neex ca jëmul ci yàlla nan la leer na boo duggee fii ci biir bàmmeel ñu tëkk sa tànk yi bàyyee nee bàyyee naa la sëñ bi sëñ bi moo amul soxla ci yow kon nañ delloo sëñ Tuubaa njukkal delloo sëñ Tuubaa njukkal nag mooy raxas dëkk bi raxas jikko yi fexe ba lim ñu digal ñu di ko def ndax kat ànd ak sab sëriñ mu yoonu wëlis wala mu yoonu gaal nga nga nga nga nga topp ci ginnaawam naan sëñ too eh, Tuubaa mën na lu ne da nga fexe da ngay fexe ba yenu da ngay fexe ba yenu sa wëlis yanaaleel wëlisu sëñ bi loolu mooy sa ndam loolu ay waxi wolof yu leer naññ la da ngay fexe ba yan mën a yanu sa sa gaal mën a yaal yanu waale gaalu sëriñ bi waaye nag ñàkk ful ba tal ne sa wëlis mu attanoo ko bëlbati ko sëñ bi galfan nga jël sa wëlis jox ko mu boole ko ganeen ak ganeen ak basam di jakki-jakki ak moom loolu du ndigal lu ab taalibe ab taalibe day xam la mu doon la ko sëñ bi jox mu fonk ko mooy ànd ak yar ak teggiin ak sutura te sëq jàmm beneen bi ci topp nag moo di am na ko ma dégg fii léegi mu wax maa ngi ja maa ngi gàtt maa ngi gàttal ko wax ne am na ay taalibe yoo xam ne dañoo doon dem xuru mbàkke yàlla dogal ñu gaañu foofu sama dëkk maam la ñooñu yàlla leen yàlla yërëm te jéggal leen waaye nag damay bax bëgg wax ñaari ñetti histoire yoo xam ne dama koy wax rek ci tëje ko bu njëkk bi moo di tax nga xam ne sëñ Tuubaa yëmut ak kenn te du yem ak kenn te ku ko yemale ku ko yemale kenn doo kenn dem naa bitim réew ñu am ma am ku may waxtaanal mu ne ma yow foo dëkk ma ne ko Tuubaa mu ne ma ah man ne damaa bëggan bu ñu demee Sénégal nga wutal ma soxna ndax damay def soxna su ma am mu tas ma bëggan nga wutal ma soxna ma ne ko ah boo ñëwee Touba de boo ñëwee naa la may sama doom mbaa sama rak mbaa sama jarbaat mbaa sama sët mbaa mbokkum tël bi boo ko ca kaw boo ko bëggee nag mu bëgg man dama boole ñaar ñu bëggut bëggantu mu ne ma ah Touba ji nga ci tudd de moo ma ci jaaxal ndax tubaa man benn yoon laa ma sa dem ci rëccu naa ko ah da ngeen may baax mu benn yoon sa ñëw ci rëccu na ko ma ne ko loo fa doon wut mu tudd ku ne ca guy mbind ku bokkut ak nun aw yoon mu ne dafa am mbokkam mu nelaw mu woo ko ca mbakki ne ko nga ñëw ñu dem barab sàngam ñi ci jëgo ñu ñëw ba hôpitalu ndaamaat bu fi daral gi newoon am na garage mécanicien yu newoon foofu seen oto paan ñu ne fa ne fa ne fa bañ daataa dépanne tisbaar jot mu jëlee fa tisbaar nee na bu fekkee am naa am na lu koy naqari yaar lay doon muy ñëw gi mu ñëw tubaa ak julli gi mu fi julli ma ne ko man maay taalibab sëñ Tuubaa bi gën a bon ci taalibi sëñ Tuubaa yi ci taalibi sëñ Tuubaa bu nar a dem sawara man naa fa dem taalibi yëpp dem àjjana dama lay wax yett yoo xam ne bu ah bu amul ma bàyyi sëñ Tuubaa dem ca Pape Sampol da mais mu doon sama sëriñ gaa daanu ma ne leen waxuma waxee daanu déglu leen ma rek ma ne ko juróom fekk juróom benn weer boo deewut ma bàyyi sëñ Tuubaa boo dee ci sëg mujj rafet sëg mujj rafet ma bàyyi sëñ Tuubaa ñu lay suul suul la yow dong ci àndoo ak say bokk ma bàyyi sëñ Tuubaa ba juróom-benn weeree mat usine ba mu doon liggéey ñu dafa liggéey ba mu dem di jël pause foofa la daanoo di wàcc deret lii génne ci gémmiñ gi mooy génne ci taat ñu jël yóbbu hôpital mu faatu bañee laaj lu ko indi 200 euros laa joxe ndax damaa am ndam ci suntuwaa ma ko jox gaa yi joxe ay 100 euros ay ay 50 euros ay 10 euros ay centésime 200 euros laa jox ma leen wax rek ngir sëñ Tuubaa ñu andi ko bu ñu ko indee kon yaar yooyu am na gaañu na ci juróom-benn weer yi mujjam rafetu ndax kuy wàcc dara di def leneen sëg mujj rafetu kere bañ koy denc murit bi nga xam ne lañ dajaleel paas ne ko nga ànd ak ñoom nga yóbbu leen mu ñoom ñuy juróom-benn murit bu bokk ci muy juróom-ñaar ñu jël avion bi ñëw wàcc Dakar ñu war a jël oto yi leen war a yóbbu ci yoon wi la ñu accidenté mel na murit boobu dong moo ca des boo demee dañ naan diw ak diw ak diw ak diw seen i kon suñu tubaab du kenn beneen bi ci topp ma jeexale ko maa ngi jégalu ndax li ma wax jël xaabaabal naa maa ngi jégalu beneen bi ci topp muy ñaar yi may tëjee moo di sëfoor si am na benn sëfoor boo xam ne mu ngi fii duma ma tudd aw turam bu subaa dana am ñu ma xam ñu ma fi xamutoon dañ ma xam suba jóge naa Italie bàyyi ci sama walis onze millions dem sama kër xamatuma fu ma ko bàyyi seet gisuma ko ci onze millions moomu lépp. ba ma demee fanaan ba bët set bi ma xëyee de di xiin xiin fu ne ma bëgg faa dugg tës tësi oto gaare sama buntu kër mu ñëw mu ne ma asalaamaaleykum aleykum salaam mu ne ma yowee sëñ jaxate ma ne ko waaw mu ne ma mën nga jëlan démb de fàtte woo dara ci sama oto ma ne ko ah, ah kay mu ne lu mu tax ma ne ko ab cartable mu ne xam nga la ca ne ma ne ko fukki million ak benn ma nga ci mu ne mi ngi nii cëpp fii la ne fii la ne beneen bi ci topp daaw bi ñuy def inscrit euh, inscription yi sama rak Moustapha Jaxate fàtte na ci benn taximaan fii huit cent cinquante mille mu wàcce ko ci ngénte chauffeur ba doon añi wàcce ko ci ngénte la moom ba may bay tëj otoom la gis bi mu jël ko denc ko ba muy gontaat mu ñëw ba ca école ba mu laajte ne maara bi ma jëleen fii ku doon ñu ko Moustapha Diakhaté la tudd xam ngeen numéro am ñu ne ko waaw ñu joxe numéro bi mu woo mu ko foone mu ko maa ngi sama kër mu ko doo laa andi woon ci ngénte la ko waaw mu ko nañ daje fa ngénte mu ñëw mu ne ko xam nga nu mu toll mu ne ko waaw mu ne ko mu toll ko 850 mu kon bu ñu bu ñu ñaawal sofóor seen i der waaye nag ñun itam li bëgg nag ñun ñu dimbale ñu ko mooy quartier bii di Madiyana nañ ko nañ ko warmaale sëñ Cheikh Say tux mi bari na fi lool jaayum sécurité si bari na fi lool jaayum yamba bi bari na fi lool jaayum sàngara si bari na fi lool te bëkk dem boo njaay gis nañ ku seetaan télé bi da nga gis ne la ñuy jàpp noonu ci sa biir la maan jàpp ko ku seetaan télévision bi da ko gis te jàppaare nañ fa fukki caga ak ñeent ak ak juróom-ñett jàpp nañ fa fukki góor juróom-benn góor jigéen te ñooñu ku leen waxoon ne am na fi ci dëkk bi ñu wedd ko te am na ci loo xam ne bañ ko wanee Cheikh Bass moom sëñ Abdou Khadir jooy xàcc la def taalibu bu nekk nag mooy mën a fexe ba seetal dëkk bi loo gis te xam ne lii wuru ne nga dénoncé ko boo ñu ko waxee ñun danañ ko saafara ma am nañu jumtukaay te am te ñun ñëpp man mi gën a màggat sax karaate kaa la ku ma dajal ci yoon wi mu yaakaar naa doo mën a dugg te gon te ay ndaw yu sawar ñoom laa ndaw ña nga ne taxaw ña nga ne ci bitti lu ñuy def ci ndigalu sëñ Muntaxa lañ ko defee waaye nañ bàyyi ne civil mënta mënta régler moroomam civilam ñun du ñu ay civil der yi ñu sëñ Tuubaa takkal àjjana lay tekki ko bu dee tekki te ñii di takk der muy police ak gendarmerie der yi ñu leen takkal ku retraité mu tekki ko dem fële ñun sëñ Tuubaa la ñu liggéeyal kenn fayu ñu weer kenn ñu dara dañu liggéeyal sëñ Tuubaa ci jaam ñi kon nag nañu reconnaître loolu ca jàpp ñu ci lu bare bare bëri nit ñi ko sëfoor si di defe ñëpp nag ñu ngi leen di sant di leen ñaanal fan wu gudd di leen ñaanal wér di leen ñaanal jàmm saa bu ngeen xëyee am lu ngeen jox seenu njaboot am lu ngeen jox seen seen i bokk benn bi ci des na moo di kuy xëy di liggéey di sëfoor ak foo mën a nekk sëfoor boo xëyee nanga nga jàng bisimilah rahmaani rahiim boo ginnaaw faatiha nga jàng bisimilah rahmaani rahiim fukki yoon ak benn jàng allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim fukki yoon ak benn bu sa ndey dee dund demal nga nuyu ko boo amee loo ko jox dem tàggu ko bu sa baay dee dund demal nga nuyu ko boo amee loo ko jox nga tàggu ko bu sa ndey sa baay dund sa sëriñ jege la demal nga siyaare ji doo dee ci àll bi duñ nangu sa alal desu la duma desu la yàqu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatu nee na bis boo ko dee def di ko defaat say bokk ñëw say bokk ñëw say xarit ñëw say dëkkaale ñëw nga di ko def ci dëkkub sëriñ Touba. muy tax si moom bi sunna te di ko def ci sunna jàng alxuraan ci suba gi jàng ci xasaayid sëriñ Tuubaa bu baax bokk yi daje fi kenn ku ci nekk da nga xam ci lu baax mu ne diine mooy labiré nee na mi ngi dénk sama bopp di dénk boppam Serigne Touba ci Serigne Touba sunu yaakaar sunu yaakaar lu dul jaamu yàlla lu dul jaamu yàlla ñoru ko ñoru maa ngi leen di dénk nee na mi ngi nuy dénk shahadatu an laa ilaha illallah muy wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah a taxawal julli is ita asaka ak génn asaka sawmu ramadan ak woor weeru koor walillahi ala nnaasi ajul bayt li man ak maanaam aj màkka ci boo ko mënee benn yoon maa ngi leen dénk bu baax nag ne mi ngi ñuy bu baax ñuy jaamu yàlla ñuy jaamu yàlla mën ngaa sàggan ci lu ne nee mën naa sàggan ci lu ne ba mu des sàggane jaamu yàlla ba mu des sàggane jaamu yàlla ndax ku dem bar ndax ku dem bar sàq bëggoo kenn seedeel la bëggul kenn seedeel ko ne ak amoon alal ne ak amoon alal aka mënoon a jaamu yàlla aka baaxoon rek ngay bëgg a dégg. aka mënoon a jaamu yàlla aka baaxoon rek lay bëgg a dégg. rafet mbubb nag. na rafet mbubb nag. rafet oto. ak rafet oto. rafet kër. ak rafet kër. rafet xol da koo gën. rafet moo ko gën. ndax suñu borom wax na. ndax suñu borom wax na. yow ma laa yan fawm. yow ma laa yan fawm. maalun. maalun. banuuna. illaa man atallaaha. illaa man atallaaha salimin. Mhm. nee fa yàlla moom xol bu set rek moo fay jariñ ak ragal yàlla alal du fa jariñ doom du fa jariñ dara almaalu wal banoona siinatal hayaati dunya almaalu wal banoona siinatal hayaati dunya wal baaqiyaatu saalihaat wal baaqiyaatu saalihaat xayrun waaw maa ngi leen di wax ne nee na mi ngi ñuy wax ne ku ci tàllal say loxo ci tàllal say loxo di ñaan am ñetti fan da gisoo résultat seetaat sa xol na nga seetaat sa xol bu baax. ndax xol ndax xol. fanaane naafi la de. fanaane naafi la. xol bu yéene ñëpp jàmm ko gën. xol bu yéene ñëpp jàmm moo ko gën. garage bi. garage bi. na ngeen fexe ba. nañ fexe ba. coow coow. bu fi am bu mu fi am. na fi coow jóge. na fi coow jóge. ki nga xam ne dafa yàgg ci garaas bi. ki nga xam ne dafa yàgg ci garage bi. kii ñëw di soog a ak kii soog a ñëw di bindu. bu leen leen warale. bu leen kenn wutale. ci yéene ge ngeen leen yéene ak yaatal. ci yéene ji ak yaakaar ji. yaatal ak yaatal ko. ndax nit boo ko xatalee. ndax nit boo ko xatalee. dafay dafay dafay jaaxle. day jaaxle. loolu nag bokkut ci melokaanu taalibe. loolu nag bokkut ci melokaanu taalibe. bis bii nga xam ne yéen a ngi koy tànn. nee na bis bi nga xam ne ñun ñu ngi koy tànn. commerçant sax. mais commerçant sax. bu dee liggéey ba at mi ñëw. bu dee liggéey ba at mi ñëw. dafay tànn benn bis. day tànn benn bis. réglé ci réglé ci. ba xam perte na wala yokk na. ba xam perte na wala yokk na. sant sëñ Tuubaa gi ngeen di def nag. sant sëñ Tuubaa gi ñuy def nag. fi ngeen di liggéeyee. gi ñuy liggéeyee. mën na mën na leen a seede bu ëllëgee. mën nañoo seede bu ëllëgee. sëñ Abdou Lahad. sëñ Abdou Lahad. fii ci Touba. dafa waxoon fii ci Touba. murit bu ne. murit bu ne. mooy doon sa seere bu ëllëgee. mooy doon sa seere bu ëllëgee. yomal xiyaam yomal xiyaam. ci kanam Serigne Touba ci kanam Serigne Touba. ñun ñi ànd ak Serigne Touba nag. ñun ñi ànd ak Serigne Touba nag. waruñoo tiit. waruñoo tiit. waruñoo ragal. waruñoo ragal. waruñoo yaafus. waruñoo yaafus. waruñoo des ginnaaw. waruñoo des ginnaaw. góor nag. góor nag. teesante. teesante. biddanti ak biddanti. ak biddanti. wóoru ko da ngay jóg ca fajar ca teel. ca fajar. julli julli. julli fajar. julli fajar. di biddanti. di biddanti. ay nelaw rek taxut yàlla bind kenn. ay nelaw rek taxut yàlla bind kenn. moo tax nit ki. moo tax nit ki. nelaw yu lum neex neex. nelaw yu lum neex neex. bu fajar jotee. bu fajar jotee. bàyyi ko bàyyi dem julli ji. asalaatu xayrun mina nawm. asalaatu xayrun mina nawm. waxtu tisbaar. waxtu muy suxru. muy dafa doon waxtu woo xam ne. dafa doon waxtu woo xam ne. dafa lëkkale. dafa lëkkale. ak waxtu wi ñu séddale añ. waxtu wi ñuy séddale añ. ndax añ bi tisbaar bi moo ko gën ci noonu tisbaar bi moo ko gën ci noonu waxtu asri waxtu takkusaan bi dafay waxtu woo xam ne day waxtu woo xam ne salaatul wusta mooy salaatul wusta mu takkusaan nag mu takkusaan nag dañoo wax ne waxtu nangu ñaan la waxtu nangu ñaan la te soxla yi dafay bari te soxla yi dafay bari mu ne bu dikkee mu ne bu dikkee bàyyi lépp loo jàppoon nañu bàyyi lépp lu ñu jàppoon fàttaliku yàlla te fàttaliku yàlla dem julli takkusaan dem julli takkusaan waxtu maxrib. waxtu maxrib muy timis. bu ñëwee bu ñëwee. moom du xaar. moom du xaar. dafay mel ne euh, terrain bi ñuy wax bi nga dafay ñëw rek dem. mooy terrain bi ñuy wax express. nga xam ne moom day gaaw. day ñëw rek dem day ñëw rek dem. <coughs> ginnaaw du xaar nag. ginnaaw du xaar nag. te yow yaa war a ñëw. te yow yaa war a ñëw. sàkku ci moom sàkku ci moom. fexeel ba. moom na la fa fekk fexeel na la fa fekk ca muy timis ca waxtu wa ngay fugloonte ak moom waaye mbiram dafa dafa yaatu waaye mbiram dafa yaatuwul waxtu geen nag waxtu geen nag sëriñ bi sëriñ bonu nga la daam robu di mboolem xarnu bi fabal sa doom yi yëpp boot ñoomin ñu boot seenu njaboot ku mata boot nga jox ko mboot ndax yàlla naa dal xarnu bi rek waay yéen murit seen tu xalam noopi am genn góor gëstu leen ay mbiram sëriñ be fi xotti baax yéemu naa ci jëfam sëriñ be fi dem ba badar dem ba daw ma def fandam maa yombe ak gabon ñépp xam ay mbiram falilu fabal sa doom yi yépp boot ñoomit ñu boot seenu njaboot ku mata boot nga jox ko boot ndax yàlla naa dal xarnu bi fabal sa doom yi yépp boot ñoomit ñu boot seenu njaboot ku mata boot nga jox ko mboot ndax yàlla naa dal xarnu bi boo ñu joxoon la nu yoroon dootu nu def nanu defoon xanaa yeggoon yaru nan ku weddi laajal xarnu bi